tout cas maa ngi leen di ziar en tout cas préparons-nous au nga Macky Sall respecté wuñu Macky Sall respecté wul sénégalais yi kooku dama bëgg sénégalais yi xam loolu Macky Sall bandi la Macky Sall affaire banditisme la ñuy jaay wallahi bu ne ma wax loolu Macky Sall affaire banditisme rek la leen préparer wu au combat préparons-nous au conseil constitutionnel ñëpp ñu fa nekk nañ leen lijjanti seeni i adresse taska ci panel bi réew mi duñ ko taal ba pare ñoom ñu ciy mucc ñoom ñëpp la ñuy taal parce que décision bu nu mun ci jël bu conforme wul ak décision bi nga xam ni moom moo moom moo xaj ci suñu nopp wallahi azim du réew mi tàkkee duñ ci mucc conseil constitutionnel laa wax ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre ñi fa nekk ñëpp ñi nekk ngàbb seen làmmiñ tapp télé yi di mbararare di wax ñëpp nañu lijjanti seen adresse tas ko ci panel yi tas ko ci groupe whatsapp yi wallahi al azim nan ko tas ci groupe whatsapp yi bis bu ñu dof dof loo topp bëgg-bëggu Macky Sall ba taal réew mi xoolal ñoom duñ ci mucc waaw taal seen ndey ñoom ñëpp waaw bu fekkee loolu lañ bëgg dañu yaakaar ne ñoom dañuy def ay njombe taal réew mi rey askan wi ba pare dem seen kër tëdd non non non non noonu non du demee noonu nañu lijjanti seen adresse ñoom ñëpp ñu xam ni sénégalais yi ñu ngi àll l'écoute di leen déglu ak leen xool dofuñu junne jàpp leen ñun sénégalais yu dofuñu junne jàppu ñu xam nañ lu xew bu baax a baax xeex bii di di ñëw nii du xeex bu ñuy àtte kenn mënu ko àtte wallahi azim kenn mënu ko àtte kenn mënu see wax ba xeex bi bu jógaatee Macky Sall du ñu abal moo tax nañu xool bu baax a baax la ñuy def ku leen yàpp la nag da leen di menacer di leen saaga di leen harceler di leen defloo ay sale boulot di leen jëlloo ay décisions yoo xam ni par force lañ koy def ndax bëgg-bëggu Macky Sall lañ topp mën ñu nekk si ñooñu ñëpp conseil constitutionnel tout ça xaw ma lan civil ñooñu ñëpp la ñu di jënd seen adresse teg task si groupe WhatsApp yi ñu préparé au combat ñoom ñooy les premières cibles ñoom ñëpp la ñuy taal waaw ñoom ñëpp ñun dañoo déterminé wu pour suñu dëkk bii nii billaahi wallaahi wa taala Sénégal baax ba faaw rek. incha allahu taala suñu bakkan lañ ci teg voilà. jiite Sénégal fukki at liggéey ak Sénégal fukki at ak ñaar avant ngay jot nguur soo ko boolee bu nekk ñaar fukki at ak ñaar nga tolloog fii sénégalais yi nga tolloog fii sénégalais yi nga ni respecté nga boo ñu amaloon njëriñ mu feeñ da nga ñu amaloon njëriñ ba nga fi nekkee ba léegi suñu doom yaa ngi dee ba nga fi nekkee ba léegi amatuñu benn sécurité ba nga fi nekkee ba léegi si politique politique si ngay dox. ba nga fi nekkee ba léegi talaw réew mi sa bopp nga tal ak loo fi saxee dakk wallaahi Macky Sall billaahi wallaahi wa tallaay dóor nga sa loxo ci ëpp président yëpp yaa si gën ñàkk sens jeunesse bii nga tombeel nii dun la bàyyee ci noonu si noonu wallaahi al azim duñ la bàyyi nga taal Sénégal si noonu sa objectif doo ko atteindre wallaahi al azim sa objectif doo ko atteindre ñun duñ sa mbaam billaahi wallaahi wa tallaay daanu abal par A ou xeex bi ngay pare nag yàgg say mbokk préparé leen ko wallahi azim amul benn sëriñ ak benn nit bu mën a àtte bi xeex xanaa mu bañ a am de mais bis bu amee billahi bu yeboo nga defar sa walis li góor gi waxoon ni gis na la nga jaar géej gi génn dem wallahi daa jaar ci géej gi génn dem barka alxuraanu karim da nga yaakaar da ngay rey suñu doom yi di rey suñu rakk yi après yow nga dem sa kër tëdd di nelaw c'est impossible loolu mënul nekk mënul nekk koo conseil constitutionnel laa wax lu ñuy jël décision bu nu mun ci jël nañ ko xool te na conforme à la loi bis buñ ko defulee ñoom ñëpp dañuy dem seen kër yi taal seen ndey barke alxuraanu kër man sama wax du neex sama wax du neex parce que ñun tamit dañu am ay njaboot sa dëkk ba heure bu nekk mën nañ leen rey heure bu nekk mën nañ leen faat voilà kon ñun suñu wax du neex dañuy artu léegi léegi léegi dès na Macky Sall duñ ko bàyyi mu ñuy rey billaahi balaa mu ñuy rey ñu rey ko barke alxuraanu karim jël leen seen ay responsabilité jël leen seen ay responsabilité ñun jël suñu ay responsabilité réel réel rek moo koy faj Macky Sall kuy jëflanteeg moom nii rek lay demee du dialogue du négocier du waxtaan du dara Macky Sall rapport de force. il faut ñu wan leen à travers si réseaux sociaux yi nga xamante ni moom moo leen tey nelaw ñu wan leen si ñun on est damaa bëgg ñu xam ne benn am nañu benn arme boo xam ni Macky Sall saa yu yeewoo suba ñun lay ñun lay ñun lay seetaan ñun lay déglu ci lañ lañ nekk moom talul soxla askan wi moom réseaux sociaux yi lay lijjanti comme que ñun nag suñu message dañ moom dana si jot parce que saa yeewoo suba mi koy déglu comme dana si jot nañ leen ko jàllale suñu message ñu wan ko ni que ñun pare nañ comme que saa yu yeewoo suba mi ngi si TikTok bi ak di rëbb ay activiste topp activiste yi di seetaan live bu activiste yi moom mooy fay activiste yëpp parce que bés bu nekk mi ngi leen di topp bés bu nekk mi ngi ci réseaux sociaux yi bés bu nekk mi ngi ci TikTok yi bés bu nekk foo ko fekk mi ngi nekk butéelu mm, sampaañam teg teg nekk ci TikTok bi talul sénégalais yi kon nan leen jaarale suñu message foofu la magie du clic fera face à la magie du flic et du clic nañ leen ko jaarale foofu mu jot suñu message wan que ni que ñun on est prêt ñun pare nañu pour dee pour Sénégal billahi wallahi wa tallaahi te lii muy def nii ak lu mu munti def bu yeboon a fexe tegu si yoon bis bu teguwul si yoon ba xeex bi jóg barke alxuraanu kërim day génn réew mi daan leen wulli ba ñu nooy nepp ñoom ñëpp la ñuy taal li Ibrahima Gueye doon wax naan matt mi xam matt mi xam bu safara soos Macky Sall lay doon wallahi Macky Sall lay doon nan ko wan ni ko on est prêt pare nañu nañ leen jàllale suñu message mu tas ba ñëpp xam ne ñun pare nañ wallahi azim loolu rek moo fi sës mais ay maslaa ay négocié nii Macky Sall yooyu muy neng nengal nga dese fi treize mois di neng nengal ci kaw nit ñi ah tax Macky Sall respecté yi xam nga fii la génnoon xeex bi tar mu génn njattu loosam jàkkaarloog sénégalais yi di ñu wax naan comprendre naa leen xam naa ne jeunes yi bëgg ngeen liggéey bëgg ngeen lu ngeen yóbbu seen kër comprendre naa leen bu soobee yàlla nangam ak nii ak nii li mu waxoon lan la ci def lan la ci def defu ci dara kon Macky Sall respecté wuñu Macky Sall fii la génnoon di wax ay emploi dem fu nekk di wax ay Jakarta di wax ay yu kenn xamul ah Macky Sall li mu waxoon def ci dara comprendre dafa doon wut bunt pour préparer waat pour xeex gis nga li mu waxoon ni da ma bett doot leen ma bettaat li fi amoon doot fi am loolu la gëm loolu la gëm préparé wu na bu baax a baax a baax a baax a baax ñun nag dañu war a pare ñun dañu war a pare d'office pare di ko xaar parce moom wax na ko li muy wax loolu la gëm Macky Sall respecté wuñu kan la comprendre ana compréhension bi mu ñu comprendre ma masuñu comprendre Macky Sall masuñu tal Macky Sall masul tal Sénégalais yi Macky Sall boppam la tal ku ñu comprendre yaay wàññeeku dem fële di ñu wax carrément ay illimité des mandats ah. yow yaa ngi tal léegi affaire mandat di tal nooy def ba toogaat fi kii tal na jeunesse bi kii xelam mi ngi si jeunesse bi kii xelam mi ngi si sénégalais yi li ñuy dund combat bi fi njëkkoon am dafa génn carrément. mu ni waaw c'est que dëkk bi dañ leen tëj coronavirus bi gars yi génn ñu couvre-feu yi moo merloo ndaw ñi moo tax ndaw ñi génn bii nag moo gën a piir parce que ndaw ñi yaa ngi leen di rey ak di rey seen yaay yeeg seen doom yi bii mooy gën a garaw mais ay tëj kese la woon bii nag ay rend la da ngeen ñuy rend si mbedd mi bii nag moom suñu génnee nag moom il faut ñu venger wu seen kaw il faut ñu rend leen benn par benn ba ngeen xam ne doom yëpp dañ leen ëmb juróom-ñeenti weer wasin leen il faut ñu jëflanteeg yéen il faut ñu jàppaleen yéen tamit rendi leen benn par benn mënu leen fi nekk seen yaay yi di reetaan nekk ci mbége ñun suñu yaay yi nekk fi di jooy suba ngoon guddeeg bëccëg yéen gënu leen ñu ay waajur il fo ñu jooyloo yéen tamit seen waajur yi ba ngeen xam ne yéen lan lan mooy doom ak lan mooy ak juréen yéen a ñuy bëgg rey xeex rek gis nga lii may wax nii lu lu lu si ëpp nag na ngeen ma jéggal mais Macky Sall nii rek laa mun a xeex ak moom mënu maa xeex ak moom la parce man xam naa ni bandi la man damaa mën a waat ne billaahi wallaahi wa tallaahi Macky Sall bandi pire la mérité wul sama ay waxtaan ak sama ay wax yu sedd billaahi Macky Sall bandi la te jikkoy bandi boobu rek la ñuy jaay waaw man lu semi du dégg si man wax bu neex parce que baaxul biir baaxul bi nañ leen jël suñu ay responsabilité Ousmane Le Lion maa ngi lay ziar soxna bindu Fall maa ngi lay ziar xam nga man lu ma bëgg sénégalais yi ñu dugal ko suñu bopp nanu xam ni situation bi fii ñu toll nii xeex rek moom mooy saafara affaire bi xeex kese. gis nga suñu bañ xeex moo lu yóbbee ñuy rey suñu rakk yi ak di rey nit ñi si dëkk bi suñu bañ xeex moo ko waral pourtant ñu ñu xeexoon tey ba dee si ñàkk suñu bakkan moo ëpp honneur luy dox ñu rey ñu te duñu xam ku ñu rey. kon éviter xeex moo ñuy jural lii gis nga ay ñaan ne kilifa yi ñaan ak yàlla na Sénégal de xoolal loolu ak wax yu bare égal zéro ñaan bu bare ak wax bu bare égal zéro affaire bi xeex rek moo koy moo koy moo koy faj xeex kese ñaan yu bare moyen xeex égal zéro ñaan yu bare moyen xeex égal zéro xeex plus xeex égal victoire billahi wallahi wa taalaay xeex rek rek rek moo nu mën a may victoire amul Macky Sall fu ñu ko jaarul amul xutba buñ ko xutbawul amul ku moom buñ doon am résultat am nañu résultat bu yàgg ñàkk xeex ak bañ xeex ak éviter xeex moo ñu yóbbee lii ñu nekkee billahi wallahi wa taalaay su ñuy xeexoon lii jeex na bu yàgg bañ xeex moo jur lii bañ xeex moo jur lii sàkku ñaan ak lépp si yem sàkku ñaan te doo xeex égal zéro kon mbir mi xeex kese moo koy faj xeex kese billaahi bu ñu xeexee mu jeex barka alxuraanu karim nan la ñu bëggee révolution te duñu xeex ah mënul nekk ñi sàcc alalu réew mi xam nañ ne dëkk bi amul sécurité dañoo sàcc alal réew mi ba pare bàyyi si jël alal ji rawale ko ba pare ñoom wàcc ñu si insécurité seen ay doom yi ñu jël leen yóbbu leen bitim réew ñu fay jàng ñu nekk ñoom si en sécurité ñoom ñëpp seen doom yaa ngi bitim réew ñoom ñëpp ñu a réew mi ñëpp seen doom yaa ngi bitim réew ñu bàyyi ñu ñun si insécurité sàcc alalu réew mi alalu réew mi lañuy ñuy seen doom yi njàng bitim réew oto yi ñuy dawal seen doom yi alalu réew mi la benn benn yi fi nekk fii si réew mi oto moo leen di yóbbu oto moo leen di indi fa ñuy jànge te ay école privée la ñuy jax la ñuy ci ñun ñu jël suñu doom yi doomu baadoolo yi ñi nga xam ne seen yaay yi ñu ngi si marché bi di jaay jën ak ñi nga xamante ne seen papa yaa ngi si marché bi di yenu ak ñi nga xam ne seen papa yaa ngi si géej gi di yenu ay pañe ñu ne seen doom yi nekk si école école kii bii nii ñuy rey suñu doom yi suba ngoon guddeeg ba cëkk mënatoo yóbbu ni benn xale ba mu dem ah nekkatuñ ci sécurité ñoom ñëpp seen alal seen doom yaa ngi si bitim réew waaw kon lii buñ ko xeexul lan moo koy faj xeex moo koy faj xeex moo koy faj ñoom du ñu dëgg mukk ba xalaat seen doom yi parce que seen doom yi nekkuñu fi ñun la fa suñu doom yi nekk ñoom seen doom yaa ngi kaaw ba ñu jël leen wàcc leen foofu ñun ñuy rey suñu doom ñu toog di ko ba pare suñu ay milliards la ñu sàcc ma ni ku xeexul xaw ma looy def xaw ma ko.